maa ngi sant yàlla avant tout di remercier euh, euh, le bon Dieu et son prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et tous les saints hommes nga xam ne ñu nekk ci Sénégal di remercier samay ñaari waajur ak sama famille ak sama toxna donc euh, yàlla def na tey maa ngi nii juste di di génn fi ci hôpital bi donc may remercier nag ginnaaw yàlla ak yonent bi dañuy def nañ seen devoir mais sénégalais yi def nañ seen devoir may sant yàlla bu baax parce que lii lépp sama hôpital la la hôpital la ma fekk réaction sénégalais yi li ma ci a neex notre Kouthia national notre patrimoine notre patrimoine national notre Kouthia national prier pour lui ñëpp di ñaan Facebook yi internet ñëpp di ñaan mais loolu ab loolu kenn ñaanu ko yàlla mais maanaam sondage la boo xam ne tey euh, euh, euh, ci feebar bi nga mënoon xam toll Sénégalais yi. te pleuré dama tëdd fi ma toog ma jooy. parce que man foogoon naa damay dem nii rek dans le flanc. foogoon naa man damay dem nii rek. ñi ma bëgg mooy ñi may defar te ñu waaw ku ca ne ñu neex sa émission bi. mais xaw ma ne am naa accès à quatre vingt dix neuf pour cent ci biir xolu Sénégalais yi nekk Sénégal ak ñi diaspora tey. li def moom mooy sant yàlla sant Sénégalais yi. ndax ñëpp ñaanal nañ ma chrétien musulman athée. murid mhm. bi tous les tarixas. koo xalaat ku nekkul ci dara xale yu ndaw yi paa yi maire yi tout le monde tous les sénégalais même qui sont pas sénégalais les étrangers qui vivent parmi nous les guinéens ñi nga xam ne dañuy a am am Kouthia ñëpp ma ñaanal. loolu damay sant yàlla damay santaat yàlla damay delluwaat di